والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu danaa bu ñu sant yàlla suñu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaratu di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ak mbooleem njabootug sëriñ bi yépp di nuyu sunu mbokki taalibe yi murid yépp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu jullit yépp it ñu nekk ci senegal ak biti Sénégal di nuyu bokk yi nga xam ne ñooy teewe jataay bi rawatina bokk yi nga xam ne it ñoo ñuy topp ci jumtukaayu tasukaayu xibaar yi tey jaar ci MKTV wala GMT wala Lampal télévision ak rajo yi yëpp mel ni rajo jant bi ak yi ñuy jokkool ñëpp la di am mbégte bu baax ci ñëwaat ci seen fukkeelu jataay ak juróom-ñaar ci weeru koor atum 1444 ci gàddaay bi ngir jataay yi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma da leen koy defal bis bu set ñu indi tomb boo xam ne dafay jàngal nit ki ci lu koy jariñ ci ak dundam ak liy yéwénal ëllëgam lu koy jariñ fañ jëm bu ëllëgee ñuy tànn ay boroomi xam-xam di ko ànd ak ñoom tey jii nag di bis bu màgg ci lislaam di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tombe ak bis bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa ak ay saxaabaam demoon xare xare bu mag boobu di xare badar nga xam ne mooy bi sowee lislaam kon bis la bu mag ñu ngi ciy ndokkeel Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ci ndokkeel jullit yépp ñu ñaan borom mu defal ñu ci tawféex tey jii nag ñu ngi war a waxtaanee tomb boo xam ne ñu ngi koy tuddee al ixlaas wa riya fi asri tawazil al maanaa li ñuy wax li ñu li ñu bëgg a waxtaane mooy lu aju ci wàllu sellal jëf ak ngistal mooy lan waaye rawatina nit ñuy def ba man cee mucc ci jamono ji nga xam ne jumtuwaayu tasukaayu xibaar yi dafa bari nga xam ne kenn ku nekk yor nga benn ci sa loxo wala nga yor ko ci sa néeg wala nga yor ko fu nekk te yooyu mën a gaaw lool ci luy ñàkk sellal jëf te xam ngeen ne jëf jum mën a doon ci lu baax soo ca jubloo lu dul payik sunu boroom rek man nga caa bañ am loola sunu borom mën na laa may lañ ca jublu ci saasa waaye fayik suñu borom dafa dafa ëpp solo kon jëf yi ñuy jublu fayik sunu boroom loolu mooy jëf yu sell yi kon danañu waxtaanee lu ñuy def ba mën a am jëf yu sell muy jëf yoo xam ne ngistal du ci aju ak nu ñuy def ba mucc ci ak euh, solo si nga xam ne am na ko ci dunduk nit ki ak yi nga xam ne sellal muy sellal jëf mën na koo saafara jàpp naa ne jamono laaj na waxtaan bu mel noonu kon waxtaan bu am solo la woo xam ne nañ ko déglu ñu ko dégloo danañ ci jariñu lool kan moo ñu ko war a defal nag mooy Serigne Souhaïbou Kébé sëriñ Abu Shuaybu Kebe euh, moom soxna Waalo Mbakke moom sëriñ Saliou kon loolu buñ ko tuddee danañ xam ne doy na mooy kan waaye ci geneen wàll gi nga xam ne tax nañu tànn ko nag mooy di boroom xam-xam gannaaw bi nga xamee ne bokk na fu baax fi mu bokk it dafa doon boroom xam-xam di gëstukat di bindkat di di di doon kuy faral di def ay waxtaan tamit ci ci fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew doon ku ñu ràññee ci mën a gëstu ak mën a tesaare njàngaleem sëriñ bi waaye njàngaleem lislaam loolu moo tax ñu tànn ko jox ko tomb bi kon yàlla na ko yàlla defal kàttan ak tawféex ba mu indi ci lu kawe njort kon su ko defee sëriñ Chouaïbou dañu lay jébbal kàddu yi nga jublu ci waxtaan bi الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك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 ziar julli yëpp it ci bis bu tedd bi ñu tollool muy yawmu badr di bis buy tegtale lu rëy ci lislaam bu yàlla dogalee jaam yi yëpp toog tal lislaam ba di ko jaamu tey ay jàmbaar a joxe seen bakkan bëgg kàddug yàlla kawe ba tey ñoom ñoo sonn ñun ñuy noppalu kon yàlla nañ leen yàlla fayal tomb bii ñuy waxtaanee di tomb bu am solo lool ndax mi ma amma bihil balwa mooy lu ñuy dund la umumul balwa mooy loo xamee ne ñépp a koy dund jamono ju ne am na lu leen yàlla jagleel am na ñoo xamee ne jamonoy télégramme lañ télégramme lañ dund booba bi mu xewee soppi na seen dund indi na lu bees am na ñoo xamee ne jamono yi téléphone la fekk bi mu ñëwee soppi na dund xarkamu doomu aadama yi ci seen jëflante waaye soppi na sax dundiinu ak jëflante ci wàllug euh, joxale bi ci wàllug euh, am-am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 daal koy selfie génne ko ci mbooleem minasaat yi ak mbooleem jumtukaay yi ñuy war a xoole lépp bu ko defee jaamu yàlla gi ñu viide ko ñu ñu tafriix ko génne maanaam baatin na ndax ixlaas ak niya mooy lubbu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 ba muy dugg ci avion ba ba ba muy jógee waat ca Makka daanaka lu fi nit ki def rek da ko gis te moo la koy wan étape par étape la koy topp ba muy tàggoo ba muy nangam yooyu sax am na ci loo xamee ne moom du jaamu yàlla loolu comme neex ku mu dérangé wut bu fekkee ne làq sa dund bëggoo ko yaa xam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 bëgg nit ñi tagg la wala nga koy def ngir bëgg nit ñi yéem la wala nga amee ca dara bi hadafin taxqiqi intibaa al marbu intibaa aw al makasib saxsiya imaam Xasaali nee nar ilam anna arriyaa min arruya wa sumatu mushtaqa min alsamaai mu ne wa innama arriyaaw asluhu talabu almanzilati fi qulubi annaasi bi iraaihim xisaal alxayri mu ne ngistal mooy ak jaamu yàlla nga ci wut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 Euh, jaam bee ko moom ba des koor koor moom maa ko moom ndax koor moom ay bàyyi la waaye du ay jëf kon buñ delloo euh, sëriñ Tuubaa wax na ne na xaqiqatu sumaati fi qawli radi ixbaaru saayin saalihin li garadi yunsabu lid duniya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 lu baax lañ fay def loolu nag moom xam naa ne dana laaj ay ay ay gëstu gëstuy fiq yu xóot a xóot ndax entreprise bi dafay mel ni moom day bëgg lu jaral mbiram xanaa nga teqale ne entreprise bi bokkut ak nit ki nit ki la ñuy tere riyaa entreprise bi nag moom day publicité daa bëgg a siiwal buñ teqalewul loolu nag jëf jooju dana mujj lënt lool léegi ci jamono yi sëñ Tuubaa ñoom arriya wa sumaatu dafa bokkoon ci kabaayir yi léegi nag dafa mel ne dañuy wut sax ay techniciens yoo xam ne nan lañuy ñuy fexee ba sumaatu ak riyaawu noo koy defee <laughs> loolu nag mooy ñu ngi ci mujj jamono dañuy wut ay ñoo xamee ne ay expert ci communication ñu lay jàllaleel say jëf di rafetal sa image di euh, gérer sa communication loolu daanaka li ñuy wax ci asuma agria rek la ñuy gis euh, technique yooyu rek la jëfandikoo waat rek kon boobaa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 maa maay def lii maay star bii loolu rek la mu ne ama riyaahu fa huwa an yasal fata li qasdi taazimi lwara in thabuta aw jalbi xayrin aw li dafci charri ka talabi lmaai wa xawfi durri waxtalafu fi qasdihi dunya ida lam yanwi xayran an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 nee na na leer na yaay ki ngisal bu wér-wér na na am walaw xalaa nee na boo tëju woon sa biir néegi di di di di naafile te yow lii ngay def amee ca say intérêt dong nga ci jublu yàlla taxut kenn gisu la loolu ana koo ko wan kon waaye ndeem innama al ni yaati boobaa jëf jooja ngistal lañ koy tudde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 ñu ne ko luy bokkaale gu ndaw mu ne mooy ngistal yonent bi alxuraan it ci delloo danañ gis laay yu baree bari yuy digal jaam bi ixlaas qaala allahu taala wa ma umiru illa li yacbudullaha muxlisina lahu ddin wa qaala aydan ala lahu ddiinu alxaalis yàlla nee na jaam bi digaluma ko lu dul mu jaamuma te sellal ko bañ maa booleeg dara yàlla waxaat ne illa allazina taabu wa aslahu wa atasamu billah wa axlasu diinahum lillah nee na ñu ñëpp nit ñëpp ay am jafe-jafe ba mu des ñi tuub te defar seeni jëf jàpp mooy ci yàlla te sellal seen diine bañ a booleeg yàlla lenn ci seen yéene wala ci seeni jëf wala seeni bëgg-bëgg yàlla wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuy yaakaar yàlla ku yaakaar dajeeg yàlla yom ëllëg nay jëf-jëf ju rafet te bañ a bokkaale boroomam ak dara ne ndax laay woowu boroom xam-xam yi nee nañ mi ngi wàcc ci ñiy jëf te yàlla tax waaye dañ doon bëgg ñu tagg leen ca buñ demee ci xadis yi it danañ gis xadis yu baree bari yuy soññee ci alixlaas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 xam naa léegi ngistal googu nag ay mazahiram ni ay ni muy manifesté woo ni muy feeñee ci suñ dund gi euh, bu dee ci réseaux sociaux yi ni muy gën a fesee mooy vidéo aki i texte ak i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 wala Instagram wala yooyu noonu man man nga ci def ñetti maaxuus wala juróomi maaxuus ci bis bi te nag lii sëñ Tuubaa waxoon ca Masaalikul Jinaan ne wa argabu al ashyaai lil amwaati raddun ila dunia maa alxayaati walaw suwaatan faqat li yaamalu saalihatan tanfahum in gafalu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 ab jëwxëra la jëwxëra nu ñu koy waxeeti euh, gànjar gu gu gën a ga gën a cher bu doon jamaa ba gën a cher ci àdduna sa benn nokki lool euh, ëpp na ko sa benn nokki boobu nag la gën a jafe la gën la amut ci àdduna àdduna sax euh, sa nokki ëpp na ko liñ la ciy fayee xajul àdduna mu ne nag boo dof dofloo ba nokki boobu badalan au lieu ñu la ciy fay lu baax waaye ju la ciy fayuñu la ci rek doy na sax pertanga waaye ñu la ci di la ci fayee lu bon nag loolu moom mooy mooy xasaaratun al akbar waliyaasu taala sëñ Tuubaa nee na amal bida bitaalatu wa tadyiici al umuur bi gayri ma yuf bi gayri sa heure say waxtu nga sànk ko ci lu dul jariñ lu dul yokk nit yàlla nga nee na sa waxtu na doon lu lay jariñ ci sa àdduna wala luy dugg sa poos luy dugg sa yool wala luy dugg sa poos adduna wala alaaxira rek lu lay jariñ nee na nag sànk sa sa waxtu ci lu dul jariñ fa daa uhu yudur luy lor jaam bi la lool ëllëg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 rafetal sunuy teggin sunu digganteeg sunu boroom teg ca ne man yanzurul quluuba wa saraira doon alladi minna yakunu zahira yàlla mi nga xamee ne sunuy xol xool ak sunuy mbóot waaye xoolu li ñuy wane li ci kaw rek kon jaam bi ci jamono yi jokkaloog réseaux sociaux yi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 fàtte biiram aw xott la rekk bu dundalee biiram biteem mën a jag ixlaas nag mooy génne mbindéef yi ci sa xol bañ a bokkaaleeg yàlla dara ci sa yéene say jublu say yéene say say say say jëf comme niñ ko jànge ci laay woowu léegi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 xam ne yàlla lu ñuy yéene alam ya'lamu bi anna laa yara alam ya'lamu sirrahum wa najwaahum ya'lamu sirra wa axfa looy def te yàlla nee na ana aghnal shurakaay an shirk man ñi ñuy partenaire yëpp maa ci gën a tayel ci pa ku bokkal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 nga bàyyi ci xel ne loolu mën naa lu yàq la dana dugg ci lu lay tafaaxur alxikmu takaathur atazutumul maqabir lu lay ëpplante rek ni koy waxee ci wolof euh, takaasur muy ëpplante ak euh, loolu nga bàyyi ko xel daal baax baax kon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 ñu bàyyi waale xel baax it li Sëñ Tuubaa waxoon ne wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilati saadati abad ajal fa fihima ijtahid wa fi tasfiyati min kulli aafatin wa fi tanqiyati wa sad bi sidqi wal ixlaasi kilayhima tasfur bil ixtisaasi mu ne gannaaw naxam xam ne li ko mën a may texe ak àdduna ak mooy xam-xam ak jëfe waaye ak sellal sellal biiram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 bil usri tawaasi al ijtimaiya suñu jëf yi yi nga xam ne ñu ngi koy jëf ni ñu ci mën a jubloo ngistal ak ngistal ni mu mënee yàq jëf te tasukaayu xibaar yi ak jumtuwaayu tasukaayu xibaar yi nim ñu mënee bijji jën ñu ci ngistal te duñ ko bàyyi xel nga indi ci lu am solo muy lan mooy ngistal ak eh, nim dansé ci jullit bi ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko bàkkaar bu ndaw maa sirkul asxar bokkaale bu ndaw nga indi tamit yu am solo ci nit ki ni muy lan mooy xajjale sal ak lu ngisal kon ndeke nit ki mën nay jëf-jëf joo xam ne àddina bépp mën nañ ci teg seen bët di ko gis fu nekk ci àddina bi waaye mu bañ cee am bàkkaar ndax jubluwaay bi waaye man ngaa wéet ci sa biir néeg tamit di jaamu yàlla kenn gisu la nga jublu ci leneen lu dul ngërëmul yàlla loola jëf jooja yàqu ngistal dugg ci kon li tax euh, tomb bi jóg lu am solo la mooy gis nañ ne jamono ji euh, tasukaayu xibaar yi wala sinab yi wala yu demee noonu nit ñi dox nañ jëm ci bu wóor a wóor ba nga xam ne léeg-léeg da ngay gis kuy def farata di wër kaaba ga wala ngay dox sa ak marwa di di génne sa bopp mën na yàq sa jëf ba ñu sax ci biir yoon wi ñuy sax nga gis ñu bëri léegi dañu dem di jëfi lu baax di yóbbu addee wala ñuy séddale eh, ay ay ay ay alal di ko wane loola bu fekkee dañu caa jublu ngir nit ñi gis ko loola eh, mën na yàq seen jëf kon tom bu am solo la boo xam ne bu mat a moytu la surtout labiré yi nga mujjee sax nga xam ne sëriñ bi labiré na ko ci nit ki ni muy yàqee temps am ci téléphone am ak yu demee noonu te xamul ne eh, lu ci nekk mën na cee am leneen njariñ lu loolu ngir bàyyi xel ñi nga xam ne dañ fee jógee ni ñu yittewoo ngir dellusiwaat indi nga it lu yaatu ci lan moo ko mën a saafara ci mujj gi mooy nga doon nit koo xam ne da ngay def rek booy def looy def rek nga def ko te yàlla tax te bañ a bañ cee séentu siiwaay bañ cee séentu ay tàgg bañ cee séentu lu nekk ndax li lañuy bijji jëmale ci loolu rek mooy loolu mooy di ko def ànd ak koo xam ne moo lay senap wala moo lay waxal lu baax ngir nit ñi gën la cee naw gën laa ki loolu soo ko ci defee mën na yàq sa jëf loolu kon euh, lu am solo la indi nga ko surtout laaj bi rek bi nga mujjee ci euh, réseaux sociaux yi ci wàllu xarala yu bees yi ni mënee yàq dundug nit ki wala muy yàq taam wala muy indi sax indi indi ko sax wér-gu-yaram wala mu sax mu koy faat di gàttal ak dundam te yooyu yëpp bëgg a feeñ wala bëgg a gis leen ma dana ko waral kon tomb bu am solo la wax yàlla am nañ ci lu kawe njort ci ni ko indee ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom gën a euh, dëgëral sa taxawaay gën a leeral sa dënn di sant mbokk yi ñu doon topp tamit ci MKTV ak Lamp euh, Fall télévision wala ñi ñu lëkkalool ñëpp te ñuy jël ab signal ci euh, surtout jumaay Tuubaa di leen jox dig daje wala di leen dig daje suba ak jàmm ñu war a benn tomb boo xam ne ñi ngi ko tuddee alsawaabit wal mutaxayiraat fi l muridiya maanaam yi soppiku ak yi dul soppiku ci yoonu murid sëñ Cheikh na Mbacke Abdoul Wadoud moo koy waxtaan insha allah suba jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh